mbokk yi di leen jëfal bu baax a baax a baax mbokk di am kontante bu baax ci trophée bi nga xamante ni wasaare lamb am nañ ko muy cent mille abonnés yuñ dugg wara a mën a gërëm ñu baree baree bare ñoo xamante ni vraiment euh, jàpp nañ ci liggéey bi ànd nañ ceeg wasaare lamb ndax ñu ci bari du ñu jàpp ni rek wasaare lamb benn nit la déedéet équipe bi équipe bi nag tey laa bëgg a sargal ànd ak ñoom ci lii ndax muy naaj muy taw muy ker muy guddi ñoom ñëpp vraiment dañ ciy liggéey liggéey bu am sol solo ñu fàtte benn yoon du félicité ñi nga xamante ni dañu fi nekkoon yàlla suñu borom dogal nekkatuñu fi dem ci yeneen bërëb wala nekk ci yeneen yi liggéey dañuy njëkk a ki nga xamante ni mooy ATM nekk fële ci États-Unis ñu ngi lay félicité bu baax di la wax ni raay bi sa raayal mu nekk nit ku baax moom ATM mën bu baax a baax a baax li muy def nekk nit ku baax nekk ci waar woo xamante ni mu ngi ciy bay liggéey bu am solo bu ma juumat abdu Diouf la njëkk a jël fële ca États-Unis moom ATM vraiment jël xale bi di jël na fa dumbul jël na fa Efran Rouge jël na fa Yanda jël na fa xale bi di Pape seen jël na fa ay ndaanaan yoo xamante ne vraiment ñu nga ca États-Unis mu fay liggéey liggéey bu am sol kon ATM bravo ñu ngi lay félicité bu baax di la ñaanal jàmm di la wax namm nañ la ay ca champion yaa ngi foofu te liggéey bi du jeex ATM amul dellu ginnaaw gaynde ga di félicité bu baax a baax a baax suñu papa nga xamante ni day toog fii di ñu décortiquer làmb muy Père Birahim Ndiaye lii ci sa liggéey la bokk ñu ngi lay félicité bu baax per Birahim di la ñaana yàlla suñ borom defal lu gudd fan ak wér ba lépp loo xamante ne xam-xam la nga def ko ci njabootu làmb li nga ci bëgg yàlla na la ci yàlla defal lu kaw sa njor Père Birahim kontaan nañ ci yow bég nañ ci yow suñu papa nga suñu kilifa nga te suñu papa ak suñu kilifa googu moom ngay xës di doon ba ilaa yow mi dina abadan mbokk nga papa nga waaye xarit nga ñu jaajëfal bu baax Père Birahim di félicité ki nga xamante ni mooy le PDG Babou Mbaye ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom mu ngi jàpp ci liggéey bi mu ngi gën di épauler di ñu gën di taxawu ñu gën di conseiller ci liggéey bi rien que ngir mu jëm kanam ñu ngi koy jaajëfal bu baax di jaajëfal famille bi di jaajëfal képp koo xamante ni mu ngi ci ginnaaw baabu di ko jàppale ci liggéey di félicité bu baax a baax a baax sëñ Basiru moom mi nga xamante ne mu ngi fii ci wasaare ñuy ànd di liggéey vraiment mu nekk liggéey boo xamante ne liggéey bu rafet waaye duma fàtte ki nga xamante ni mooy paate paate nekk suñu kilifa yàgg ànd ak man di ma filmeel di monteel di ma dugalal ba tey mu nekk ci loo xamante ni vraiment ay yitte la yoo xamante ni permettre ko loolu ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal gudd fan moom it ak wér ba lépp loo xamante ni bëgg na ko yàlla defal ko ci lu kawe njort di félicité ki nga xamante ni maa ko tuddee le cadre des cadres ni aadam nekk ci site bi vraiment ñu ànd fu nekk ànd nañ dem nangaan sàmm dem fu nekk te maa ngi ñaan yàlla yàlla nañu àndee noonu génn réew mi dem indi ay image yoo xamante ni sénégalais dañ ciy kontaan di ko félicité bu baax di félicité Ousin moom it mu ngi ci liggéey bi di góorgóorlu di félicité bu baax Khalil di euh, félicité Ibrahima système mbenn maa ngi koy félicité bu baax di félicité Fa di félicité ki nga xamante ni mooy seen Omar ak képp koo xamante ni yaa ngi wasaare rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal ki nga xamante ni mooy Omar Swiss Gold di ko wax ni teraanga bi maa ngi koy bokk ak yow Assane Fall boroom global textile maa ngi lay jaajëfal bu baax di la wax ni teraanga bi maa ngi koy bokk ak yow soxna Aida moom mu Serigne saali maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko wax ni teraanga bi maa ngi koy bokk yow di ko bokk samay famille di ko bokk sama xarit Babacar borom Espagne ak waa koñ ba yëpp Cheikh Bodian su ma ñëwee wasaare tey vraiment ci sa loxo la jaar sa loxo la jaar nga woopaate ate woo baabu ba tey ma ñëw wasaare làmb intégré la ci oustaz Cheikh Bodian maa lay siyaar bu baax yow oustaz Iran Ndaw mi ñu lay tooñee di la félicité bu baax di félicité suma grand Fallou Ndiaye vraiment jàpp na ci liggéey bi conseil gis naa ko Ahmed Boutik suma mag suma famille yëpp maa leen di jaajëfal ku lim doo juum waaye da dul matal commando sama xarit maa ngi lay jaajëfal bu baax di bëggee ñëpp waa koñ ba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di leen wax ni maa ngi leen di béggewaat bu baax a baax a baax doolay jën ndox doolay waykat public waaye doolay wasaare làmb yéen na suñu mbokk internet yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen